a ñëpp leer na nag benn ministre bu mu mas recevoir amut ci àddina président it mosumaa gis xawuma ko lenn lu jóge ci état lu mas a dugg sama poste bi man Cheikhouna Mbacké amut na leer association bi daal yàlla dogal na dem naa ba sentir sama bopp ne war naa mën a jàppale sëriñ bi ci dëkk bi ndax dëkk bi lu fee laay di def sëriñ bi nga ciy jàppale ndax sëriñ bi ci jiitu ndax sunu kilifa la di suñ lépp te kenn ku ci nekk gis na bu dara amee lu xew lu lakk ak lu mën a am mu jël alalam def ko ci kon ñun ñii suñ buuru ñoo mën a gën a gore war noo mën a jël suñuy pexe ñu nit ba mën a dimbali nit ñi lii rek moo waral woote bi woote nag ak association kenn du ko def mbooloo koy def moo waral ma woo leen général nag comme ni nga ko waxee jaar nga ci résimé nga président Macky Sall li mu fi def man li mu fi def lépp xam naa ko vraiment ñu ngi ko ci sant ñu ngi ko ciy gërëm ndax ñun amul lu dul tuubaa ak waa Touba lépp lu fi waay def rek ñun jàpp na ne ñun ñoo ko waroon a def kon lu fi président def rek ñun ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ndax hôpital bii ci mujj wax résumé nga ne lu fi def lépp ñu ngi koy sant bu baax di ko ci ndokkeel di ko ci gërëm di ko ñaan yàlla suñ borom fay ko dëkk moom ku fi def lu fi waay def rek su dëkk borom moo lay fayal boppam. association bi nag ñii laa ko bokkal muy samay ñuy samay mbokk. ñu samay dëkkandoo di samay xarit waaw dolli naata naatal sunu ko waaye nag Sénégal nag wax fi lu jëm ci politique dafa jafe rawatina tuuba ndax soo demee dakaar rek soo ñëwee oto bi dong ba saasee ñu ne jox nañ ko dara moom nangam nangam te man du man as gor laa man dama sama alal laay yor di leen ci dimbale ba tey jii loolu ci laa loolu nekk su lu ma am loo xamante ni jóge na feneen luy ñëw ci man yàlla xam ne maag yéen a koy bokk kon nan boole suñu bopp ñun ñépp kin ci njëkk tàllal suñu loxo nag mooy président Macky Sall ñu ngi koy tàllal suñu loxo ndax yéen daal li fi nit ñi wax seeni jàmbat li fi nit ñi wax dégg moom na na ko dégg man ñii rek laa am su fajee seen aajo rek ñu ànd ak moom kon nag ñu ngi koy lancé di ko tàllal loxo xam naa li nga xamante ni waa dëkk moom lan manqué association handicapé yi ñu ngi nii toog dañ leen a war a gestu ci dëkk bi ndax ci lan bokk sëfoor yaa ngi fi téyeer yaa ngi fi baykat yaa ngi fi sëñ Modou Abdoulaye mii sama wet ab baykat bu mag la te kenn jàppale ko te war naa am li nga xam ne moom moroomay moom la ne am lu tee kon ñëpp a ngi fi kon nag xëy na ñoom mënuñoo dugg foofu man mën naa faa dugg kenn ku ci nekk na xëy na maay seen bunt moo tax ma ne leen mel leen jël suñ boole nu am lépp ak suñ doole àndandoo fa yéene tàllal loxo président Macky Sall suñu nuyoo ñu ñu ñu jëm ci moom su fekkee yàlla dogal na loolu amatum ñun lan nekkoon di di taqale di lijjanti daan suñu doole loola ñu ñu continuer ca lu lu lu na ngeen naam li ma leen seeral daal mooy lépp loo xam ne am naa ko man ci sama doole waaye wala muy sama wërsëg dama leen ko na ma ko daan bokk ak yéen démb tey doog a ñëw noonu laa koy bokk ak yéen